xam nga euh, kaaraange yi moom mët na kaaraange yi mët na dispositif bi fi takk der yi indi démb vraiment mët na te seen xarañ ci itam wane nañ ko te def nañ liggéey bi ñu xaar ci ñoom dëgg yàlla euh, xam nga service d'ordre dafa am euh, li ñuy wax aussi maintien de am ak leneen technique ay technique la yoo xam ne alkaati yi ak gendarme ñoom ñoo moom te démb wane nañu ab xarañte boo xam ne constaté nañ ko bien avant ngay dugg ci arène bi kon nag loolu bu fekkee ne gis nañ ko dañ ko ñu féliciter leen encourager leen ñoom euh, leneen li mooy li fi xew li ngeen di laajte mooy maanaam gaañu gaañu bi am gaañu gaañu bi yéen ñii comme ñun comme ñeneen kenn xaaru ko ndaxte ñun li soxloon nit ñi gis nañ ko fukki combat la woon juróom-ñeent dawal nañ ne lu mu jeex ba des ñu ne grand combat moo des li xew am te loolu kenn xaaruloon kenn yaakaar loolu nit mën na kaa def donc lu bett nit la comme li nga xamee ne yenn acte de violence yi dina am foo xam ne kenn du ko fa xaaree mu ñëw moo moo mooy li am démb ñu ñaawlu ko lool jusqu'à la dernière vraiment énergie rafetluñ ko benn yoon di ci masaw di gaañu mais Papa Sow benn ci masu Ibrahima Cissé bi nga xam ne tamit bëggoon na jongante ak papa comme ni ko papa bëggee woon pour ñu bëri combat am et yàlla may ki nga xam ne moom mérite ndam ndam li mais amuñu loolu liñ am mooy am na koo xam ne def na ci coobareem lii indi problème bi dakk maanaam jël tool ndënd sànni ko doomu aadama mu dal ko vraiment gaañ de combat amul loolu naa yaakaar ne amateurs yi fans club yi képp ku ab làmb yëpp képp ne vraiment safoo nga ko ñaaw loo ma làmbee safoo sport da ñaaw loolu vrai que loolu ci acte de violence bokk mais aussi ñu xam ne c'est pas l'apanage de la lutte simplement làmb da mu am violence non violence am na démb constaté nañ ko yi amoon avant la loon ay chaise ñuy sànni ñu ñaawlu ko lool dem taxoon ñu génne ab circulaire war nañu ni loolu bokkul ci làmb bokkul ci sport bokkul ci acte citoyen dañu ne presse bi ak ñëpp ak ak lu laam bi nañ ci jàpp bokk ci mobilisation bi ba vraiment nit ñi mën a euh, dellu ci seen euh, dellu ci ay mille sentiments yoo xam ne dañu mën a respecter arène national bi ndaxte bijou boo xam ne ñun ñoo ko moom ñun lañ ko jox te yàggoon nañu di ko jooy ba yàlla wërsëgal ñu ko di ko toppatoo waruñu xaarati ne état nañu ko defaral ba di ko toppatoo ñun suñu ñoo ko topp toppatoo suñu bopp citoyen yëpp nag ak làmb yëpp war nañu taxaw di ko toppatoo loolu amul mais quand même am na ñu ngi ciy góorgóorlu donc foofu moo tax ñu ne ñu wax nit ñi nañu dal mais nañ ñëpp bokk sensibilisation pour que nit ñëwee noonu démb à part affaire boobu noonu mais c'était très bien arène fees na gis nga bi combat amul nit ñi dañoo ñibbi amul benn kaas dañoo wàcc tout tranquillement ndànk daal yi dem ñibbi kon nag ka nga xam ne bokkoon na ci délégation officielle moo def la mu def loolu danañ ci seet ak suñuy rapport seet naka la ñuy def bi nga xam ne loolu vraiment dootu fi am te aussi bu fekkee ne jot nañ rapport yi na leen càmbar la ca war nañ def suite bi nga xam ne moom moom la yelloo moo ci mën a loolu mooy lañ ci mun a wax ci réaction à chaud fi mu ne ni bon xam naa ne après le CNG na réunion apprécier situation bi xool ko et puis li nga xam ne mooy moom lañ ci jël comme dogal daal leen ko jox incha allah non xam nga ñun duñu ay non ñun duñu ay enquêteur ñun CNG la suñu CNG dafa ñëw suñu règlement li ñu jox dañ ko def suñu texte dafa lu mu tuddee loolu lañ ci texte la ñuy basé wu pour régler situation bi bu amee ku tooñ dañu war a kii moo tooñ bu nekkee dañ ko war a daan ñu daan ko dañ ko ci réglement yi li mu wax rek bu fekkee kenn tooñul tamit ñu xam ne kenn tooñu mais loolu mooy dëgg mais daal dañ jot rapport yi yëpp bu ñu leen jotee dañ leen teg su la table waxtaanee ko réunion ci seet ko seet la ca règlement yëpp ñu def ko. ça c'est c'est c'est mm. non loolu seen affaire civile xam nga loolu affaire yi Papa Sow la il est citoyen li def ko lu ko métti am na droit ne ma damay dem ci yoon loolu son droit nañ ko ko bàyyee loolu yoon CNG newu ci CNG li li yoonam nekk mooy fee bi am na fii am na suñuy texte nu ñu wax dañ ko gérer atte ko ci suñu texte bu fekkee atte war na am mais suñu si daal nañu ko respecté à la lettre moo tax ñu amul ay rapport yi bu ñuy ñëwee rek amul problème on va sax ça maintenant Papa Sow moom su amee benn démarche bu muy def defi bu ko neexee mu defi ko am na ci liberté mais le CNG en tant que euh, instance faîtière moom dana seet ay règlement lu ñu ko permettre mu def ko ci li xew nii. Euh, président benn rek xam naa boobu la ñuy jeexale par rapport euh, sécurité stade bi parce que am na ñu doon décrier avant. ba ci ouverture ba ci déroulement combat yi ak euh, li nga xam ne moo fi jot a xew mm-hmm. ñuy wax ne méngoowul tëgg ak làmb mm-hmm. est-ce que yéen ngi bàyyi xel par rapport ak làmb yi nga xam ne moom mooy ñëw jéem a créer yoo xam ne gën a sécuriser nit ñi par rapport ay filet yoo xam dafa yéeg ba ci kaw ngir ku ñu sànni koo xamante ni rek mën na ko bañ a dal par rapport ak ci lool est-ce que yéen ngi ci xalaat non sécurité xam nga lu ñuy wax rek gis nga euh, mënuñoo waajal lépp mm-hmm. waaja lépp yàlla rek moo ko moo ko mën li nga mën a mooy nit xel xel la am. yàlla daf ko dénk xel. dafa war a jëfandoo xelam nag. c'est très important jëfandoo ko seen xel. alxuraan sax wax na lu ñu am xel. donc je crois bien que bu ñu waxee ne lii dañ koy tere nii di ko war a bàyyi. def ay noo non ñu yegg foofu pour que bu ko sànni nañ wax kay sànni mu téye loxo mu sànneet yi loolu mooy dëgg mu sànneet yi daañu jël ay motukaay incha allah ba sànni boobu dootul amati. waaw sànni boobu loolu parce que ndox ndox la d'accord day bu euh, day toj euh, du la gaañ mais mun na gaañ sax mm. parce que da nga koy sànni ak fu mu fekk nit ki mun na ko gaañ mm. leneen la même bu fekkee dafa tas tis sa kaw daf lay tilimal mm. parce que làmb aussi euh, sport buur la dafay ndaanaan la munoo jóge sa kër solu ba set ñëw toog ñu sàll la muusi ndox mu tooyal la laa nga daal di sant ci tàng-tàng loolu si du yoon daañu def jël suñu motukaay bi nga xam ne ndox kenn dootu ko sànni loolu vraiment ratio bi ci kàttanu yàlla danañ ci dox bi nga xam ne bu amati. mais dina am ay réformes ah, ah, bien sûr ah. parce que aussi y a ce qu'on appelle action réaction. li am na dal bett nañu. Mm. mais bu ëllëgee du ñu bett. Mm. parce que ay motukaay bi nga xam ne dañ ko aar loolu yëpp eh, rapport yi moo ñuy indil bi nga xam ne dañ toog réunion mm. seet li am yëpp naka lañ ko décrire seet naka lañ koy saafara saafara nag sooy saafara dafa am nouvelle disposition di am bon li nga wax démb xam nga démb ngeen ñëwee pour éviter encombrement moo tax presse ñu teg leen benn côté. dinañ fa nekk mais bu mbër yu mag yi les li les sur vedette bu ñuy bëree dañ leen may ñoom ñu dem jege leen ñu génn foofu delluwaat te loolu ñu démb prévoir nañu aussi sax pour ñu tuusee ci suuf si mais malheureusement ñoom dañoo ñëw nañu euh, suuf si dafa diis bu ñu fa tuusee duñ mën a bëri et effectivement c'est vrai humainement su dis na wax boo boo bëggee def sa chorégraphie fecc soo paree da a pas y a pas de problème nañ leen a dem ci kaw tartan dañuy faral di wax nga beneen mujj ah. bii rek ñu dañuy faral di ñëw làmb mais à chaque fois bu ñu ñëwee assister làmb même sax bu amul ay violence dañuy gis ne du am oto sapeur pompier boo xam ne dafay nekk du am tamit ay euh, médecins yu waa sapeur pompier bi loolu tamit ah, est nañ ko. Mm-hmm. mais Papa Sow sapeur yi ñoo ko yóbbu hôpital démb. Mm-hmm. bu ñu paree fii. Mm-hmm. sapeur yi fii la ñu ubbee jox benn salle genre infirmerie. pour au cas su fekkee am problème ñu yóbbu leen xam nga ñun. dañuy prévoir loolu xam nga on progresse li am noo xam ne bu amee tey ñu jàngat ko ñu ne bon lii am na nañ prévoir salle boo xam ne bu fekkee ne am na ku gaañu sapeur yi ñëw foofu ak suñu médecin yi Papa Sow méde ay médecin ñoo ko ñoo ko faj fii démb avant daray am y a trois médecins qui étaient faj nañ ko bàyyi ko mu dem ba mu yàgg ñu xoolal ko pour réexaminer ko parce que réaction à chaud aussi baaxul parce que c'est un grand combat ñu ré ñu xoolaat ko daal kii mënul bëre xam nga médecin bi parfois dafay dicter arbitre bi la décision parce que dafay am décision wax